on verra avec le temps Macky Sall day dem lan ngay xaar ci moom. Macky Sall. waaw ah. ah wax dëgg yàlla day andi na jàmm nag. parce que bu tuddoon troisième mandat kon tey du ma fi toog di wax yow mii doo ko tal courage bi mu jël à ses deux mains ne bàyyi na wax dëgg yàlla moom rafet rafetlu naa ko nangelawam nangu te ñu def ak moom passation de service ci jàmm ak salaam. mais par rapport ak processus électoral bi euh, par rapport ak li des ni mu war a tëddee euh, lan ngay xaar ci moom. lu may xaar ci moom lu mu defuloon 12 ans dina ko def ci ñetti fan. mais gars yi nee nañu Macky euh, c'est que Abdoulaye Wade a transformé ce pays là. Ah, mais gars yi nee nañu Macky Sall dafa tripler tout ce que Wade a fait. waaw xam nga ñi daan reere cere. léegi tufe la ñuy reere <laughs> ñi daan reereel ñi daan añe laax léegi ceebu jën bu mag la ñuy añe jamono moo changé. c'est normal dëkk bu ñuy seetu pétrole ak gaz ku fa nekk président boo ñoog ñogee tuuti war ngaa góorlu li amoon daaw donc donc d'accord li amoon daaw amatul ren. kon man boonu nu méngale nag ñun mi ñu fi ñëw dëkk bi dara amu fi ñun ñoo fi indi appayage ñun ñoo fi indi Blaise Diagne ñun ñoo fi indi Grand Théâtre Ablaye Wade moo fi indi euh, monument de la renaissance africaine Ablaye Wade moo fi indi la case des petits des tout petits éducation à bas âge Ablaye boo demee ci jam ñaajo gi hôpitalu xale yi sa xol day sedd dalal jàmm nag c'est le sommet mën ngaa réer ci biir ñu leen wër kenn du la gis ak am expérience bu woy góor gi yal na yàlla guddal fanam te wéral jërëm waaye nag les gens les douze ans après wax dëgg yàlla changement war naa am la ko daan reere sama yaay lam daan reere reereetuma ko lam daan añe añeetuma ko anoon ah, rek la les hommes passent les institutions restent waaye sama waa ji jàmbaar la de dalinkoor la jikko ju rafet ji mu def liggéey bu rëy bi mu def ci réew mi loolu mooy dalinkoor bu doog ji dikkee nag moo doon super dalingoor